merci di nuyu ñiy seetaan euh, seen émission matinale bi euh, nawetaan euh, Aïcha mm. c'est un phénomène boo xamante ne dañ ko war a toggaat parce que li ñu gis ni nekkatul nawetaan nawetaan c'était des activités de vacances léegi dañ koy ubbi ba dugg nooraan ba décembre ñu doog ñu du yegg donc il faudrait ñu repenser un peu le mouvement maintenant euh, violence bi. Mm-hmm. dafa commencé bari du ci nawetaan rek la la la am. Mhm. Sénégal moo nekk ci ay cycle violence depuis depuis depuis depuis quelques années mais pour revenir euh, ci nawetaan bi à parle parler euh, li tax ñu suspendre activité yi à Dakar il oh, y a eu mort euh, entre des supporters yu doon xeex mais je pense que tey dafa laaj comme ni mu ko waxee ñu toggaat le mouvement nawetaan. parce que apparemment ñi koy jiite dafa mel ni daf leen a dépassé on ne pas nga am ay quarante soixante ans presque bëgg a gérer le mouvement nawetaan le mouvement nawetaan euh, dañ ko war a xale yi. jeunes yi jeunes yi. ñu ñu ñu ñu ñu xoolaat. mais franchement franchement non pour dire franchement euh, tu euh, dafa am dirigeant yi fi di fi yàgg. Ah. yu fi yàgg trop ci mouvement nawetaan bi. et apparemment daf leen dépassé avec peut-être le manque d'infrastructure et cetera les matchs les les nawetaan s'étirent donc je pense que c'est regrettable qu'il y ait mort d'homme mais il faudra il faut que aussi que que l'État vraiment xoolaat cette organisation parce que taan moom mooy euh, moom mooy euh, bon mën naa football nawetaan moom mooy drainer du monde les stades sont pleins euh, voilà les jeunes sont passionnés autour de leur équipe les rivalités entre entre entre clubs le voisinage entre club ça ça fait que kenn du bëgg a perte maintenant maintenant compétition yi ñëw compétition yi ñëw pour départager les les les équipes qui va être premier qui va être deuxième donc c'est un engouement populaire mm. mais il faut qu'on l'encadre parce que sinon dina am benn période parce que on ne peut pas chaque année dénombrer des morts et des morts ci mouvement nawetaan du fait euh, des violences dans les dans la violence un peu dafa commencer nekk ci ADN euh, Sénégal comme ni mu ko mën a waxee parce que on peut des cycles de violence un peu partout en euh, politique sport et cetera làmb ji. donc il faudrait que ñu toggaat tëggaat. Mhm. beneen euh, beneen en cas beneen esprit autour du sport. Bon.